waaye ndey xadi kër ga daane nañ ko ndeysaan kër ga daane nañ ko xam naa yëgoo ko R plus 1 la léegi R plus 1 ña ngi koy yëkkati nguur gee koy tabaxal trace yi lay effacé képp kenn mënul dugg ci kër googu ne nit mun na fa violer nit procureur musu fa teg tànk doyen des juges musu fa teg tànk ñoom ñoo ne maire bi jëlal sa kër ñu financé la ñu changé ko changé nañ kër gi dem leen ci kër ga ndey xadi demal ci kër ga doko xamé R plus 1 la ngay xadi demal ca kër ga R plus 1 lañ tollu étage lay doon maire ba amul dara gouvernement bi jox na ko xaalis bu weex tal changer nañ kër ga yépp yow bo duggé ci kër ga doko xamé ti ña koy tabax commune sa ba doxantul bo gisul lool woo ma ne ma mola ya mu na fen mola del wax deug dam leen xoli kër ga gouvernement ba ay millions lañ tek ci loxoy borom kër gi ne ko changé ko nu mu gën a gaawee na na R plus 1 la changé nañ lépp bu fa ndey xadi demee réer xam nga lu waral lool waxoon naa leen ni weñ sax buy naaw nga nekk néegu ndey xadi ak ak si salon bi ah fi ñuy defee fi ñu defee massage bi weñ sax bu yëngoo da koy yëg ne naa leen un mètre un mètre douze la un mètre douze dañ ko natt dañoo dem natt ji ko un mètre douze xanaa loolu <laughs> loolu yomb la natt nañ ko un mètre douze weñ bu ne fa yëg ko te jëkkëru Ndeye Khady mi ngi foofu ñoom renseignements généraux yi may wax nii seen seen bagage yi ma yor nii indil nañ leen ko kon xam nañ ni fii mënuñ viol amu fi ñoom xam nañ ko de xam nañ ni fii viol amu fi